maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di delloo ziar waaw hmm? ah. macha allah leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu teewaay bi lool depuis démb ba léegi sonn ngeen pour ci ñëw bi ak yoon bi ak diggante bu xat bi macha allah mobilisé wu ngeen pour ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. macha allah foo leen bëgg teel bi egg fa it yal na ko fa yàlla àggal man de benn problème la mooy sama doom ak sama sët wuj mbir mu wujjee daal moo leen boole mu dem fekk wujj bi fa mu ne wax loo ko ba mu wax fekk mu yor woon kafe kafe bu tàng mu tuur ko ndox tànk bi di tax ndox mi daal di tuur ci mook doom ji yëpp doom jaa ngi nii moom démb ba léegi nekkuñu ci jàmm yaay ji nekku ci jàmm yaay ji macha allah te bu mënoon wax moom mooy waxal boppam parce que fekkee ma waaye defe naa ne doomu aadama amuloo fit boo xamante ni day jël ndox mu tàng di ko sotti sa bopp su dëgg nit ki néegee woo di tàngal ndox ba mu tàng di ko xëpp sa bopp waaw mu ngi noonu nag yéen a ko gisandoo sama sët a ngi nii sama doom a ngi nii mën ngeen koo xool mu ngi ne mm-hmm. tool yi ñoom mosuñoo jiboo waaye aaw bi moom chaque jour moom ci ci tooñ la dëkk parce que kii dafa nekk ci suuf moom mu nekk ci kaw chaque jour bu suñu doom na bu ñëwee dañ koy muñ loo di ko sëyloo waaye defe naa moom gisut loolu moom wujjee daal la gis bañ naa ko ba sama doom yaay sax la koy wax parce que defe naa ku mag sa yaay kooku sa yaay la yaay la koy wax ba ci élèves yi nga xam ne dañuy jënd sax ba muy doog a sëy 2017 ba léegi moom daal xale bi amul jàmm parce que mun naa ne moromu maamam la sax nag waaye moom daal moo mënta supporter xale bi xale bi bëri dafa fayoon bari ki démb la bi dimanche même pas dimanche ñu def ko nii moom doom ji xanaa bu demee bay xeex na xeex ak doom ji waaye yaay mënta na xeex ak yaay ji bàyyi doom ji kii moo nu yàlla kii xamul dara metti na trop macha allah métti na fu métti yam ñu ngi koy métti lu bu baax nag mënuñu ci dara nag waaye xëy naa yoon mun na ci dara ñu ngi jël yëpp nag di ko jébal yoon yoon def liggéeyam mhm. ci waañ bi. maanaam ndox mi mu tuur ci karo yi ndox ndox moom moo moo moo moo moo du tax lu bi dafa glissé maanaam dañooy daje comme moom dafa jël bidon di root di tooyal karo gi xam nga karo bu tooyee kay sa tànk bu ci dëggee fekk kii mu ngi énervé wu parce que boobu coow nañ toogu tar mu ne ko bàyyi naa la yàlla bàyyi naa la yàlla boobu nag loolu moo xajul moom mu tooyal ëtt bi yëpp comme xam na ne moom appartement bi dëkk si kaw la dëkk sama doom ci suuf la dëkk te xamoon na ni boo ko ne bàyyi naa la yàlla dina am lu ko naqari loolu léegi bàyyi naa boobu moo xajut ci moom mu tooy kër gi ba mu tooy kii na ko ba tey bàyyi naa la yàlla mu yëg ci kaw ni jànk bi ndax ndoxu duus a foofu mu ne ko waaw mu sotti ko sama kaw doom boobu mu ngi taxaw mu ngi sëgg si robinet bi koo ko sigi ko léegi nag mu nu mu muy génnee ndox ndoxu ndoxu kénkilipa pour jox doom ji ñu daje nag ndox moom moo gis sa tànk bi parce que defe naa ne woon bu wujj bi defut woon loolu kon moom du daanu ba ndox bi di des ci kawam. ah mën nañ ne tayef la mën nañ ne wujjee la parce que wujjee nag moom lu ne xaj na ci waaw. yoon def liggéeyam rek yoon moom ñëpp la fi nekkal yoon def liggéeyam rek loolu lañ bëgg. metti na trop fu metti yem di ñaanal yàlla dëkkandoo yi parce que dëkkandoo kenn mënu koo fay wax dëgg neex yàlla. depuis démb ba léegi gis nañ seen taxawaay di leen nuyu di leen sant di leen jiyaat di leen jox moom nag mu ngi dëkkee ci ginnaaw police bi rek mbayang lu tudd day jaay ndékk ci buntu këram jigéen gënu koo yées jigéen waaw kii def jëf bi mbayang la tudd mbayang géey mhm. mbayang géey la tudd nen na nen doomam moom nen na géey la sama doom nen na géey la tudd mati waaw mati silla waaw mu ngi noonu mënul wax mati wuyul nee na looy wax sa tante moo def nii ah waaw kon baax wuyul nee ndax day metti wax ko waaw mati xam na metti na macha allah waaw mu ngi wax yéen ñi ko tiimit xam ngeen ni metti na parce que yaay ji ngeen di wax moom gis ngeen ko dafa daanu waaw depuis dem ba léegi nekkuñu si jàmm nag ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaraat di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax macha allah kontaan nañu. Hmm? déet wujjee moom jaru ko góor moom jaru ko góor moom jaru ko parce moom lépp lu mu wax nee na xale bi la àndal te li yàlla xam doy na waaw waaye ñuy jël lépp nag di ko jox yàlla waaye terewul na yoon def liggéeyam rek waaw. waaw nañ plainte nag waaw am naa dañuy xaaragum rek famille bi dajaloo waaw. duñ ko jéggal parce que chaque jour ci def la dëkk chaque jour da koy xamloo chaque jour da koy daw loolu nekk la koy def loo kon mënuñu koo jégal dina def yoon def liggéeyam daal yàgg na am daal du c'est la première fois du deuxième du troisième du quatrième xale bi bu famee deux jours mu ñëw am fii quatre jours xam nga loolu kenn ñaanu ko yàlla waaw ah, mu ngi noonu ah ñun sëy lañ xam dañ koo sëyloo saa yu ñëwee dañ koy dàq pour mu delluwaat dañ ko dañoo dàq dàq ba sonn waa koñ bi yëpp nañ li muy def kër baayam du ko def kër jëkkëram kon loolu sëy jaratu ko waaw mu ngi noonu hmm? mu ngi noonu nen ne mën nga wax tuuti déedéet mënul wax mënul waaw mu ngi noonu doom ji kay moom mu ngi nii waaye yaay ji moom mu ngi ne parce que lakk bi dafa sori waaw xam naa tuuti rek ngeen ciy jël waaw. Mhm. dëgg la azeg na mhm. waaw kaw bu sax métti na trop jéggi na dayoo maanaam di leen di leen rek di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp macha allah taxawaay yëpp rafet na parce que démb ba léegi bañ ko déggee ñëpp a ci jóg ñëpp a jóg wax dëgg yàlla di kontaan ci ñoo trop trop trop waaye waa police bi moom wax dëgg neex yàlla waroon nañ koo mën a yëg daal. parce que waaye doo mën a yëg nañ ko parce que ñoom ñoo jël police bi kon xam nga ni sareewuñu miiru police bi ak seen kër ñoo jàkkaarloo loolu tey man bu ma fa nekkoon damay woo police yi kon àtte kon du ñu egg fii yëpp sax nag. mooy waaw fu mu nekk ni mbokk famille bi la ñuy xaar ñu dajaloo waaw moom la ñuy xaar ñu dajaloo waaw buñ dajaloo léegi lu ñu yoon jox rek ñu def ko. Hmm. ñoo jàkkaarloo ngoog waaw doy na doy ah, loolu moo ma jaaxal parce que ñun fii lañ dëkk Azak fii ñoom ñu dëkk fële ci kaw waaw. waaw ñun dañoo demoon bay dem jëkkër ji woote mu ne jaru ko yaram yaram bi taxu koo garaaw daal yóbbu na ko hôpital mu ngi ñëw ñun daal loolu lañ ci am. comme ñoom tamit ndigal la ñuy wooyee ñu daal dellusi dellu xaar ko waaye ba ba ma envoyé fa tey ci laa ne nag jot na moom lii moom kenn mënu koo bàyyi ñi waaw. waaw mu ngi noonu nag waaw kay jooy métti na lool waaw métti na tool kay jël ko waaw mu ngi noonu mm-hmm, waaw na kay merci ñun ñoo gën a kontaan macha allah kontaan nañ trop bi rafet na macha allah. dernier kàddu xanaa di leen nuyu di leen ziare rek wax dëgg yàlla parce que kontaan nañ ci yéen daal parce que mënoon ngeen koo dégg li yëpp bañ leen fii fekk parce que lépp ak Fatima magam bi moo def lu yëpp jéego yëpp moo ko dox moom itam di ko ñaanal yàlla parce que deret lañ yëngal fu mu nekk nii deret yëpp a yëngu lii bu tasa woon ak démb kon dara du baax kon famille bi ñëpp ay wax waaye daanaka xaaj bi ñibbi nañu xam naa heure bi ñuy ñëw itam dina fekk ñu yéen ngeen ñibbi loolu la kon wax naa rek dafa mel waxaale naa ñëpp daal waaw mu ngi noonu macha allah.